yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban adadi. barkab Serigne Saliou jërëjëfati Serigne Saliou jërëjëfati ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool tànn ak wér ñaanal Serigne Cheikh Saliou Mbacké mu yàgg fi lool tànn tey ñoo fi ñëwoon. ñëwee fi si turu El Hadji du Seck mi nga xam ne moom mooy directeur Cofris di usine bi nekk fii ci Touba di yëngatu ci wàllum jën glace ak ndox di jëm ci weeru koor gi nag amoon yéene barkeelu indi ko fii ci jumaa ji euh, ànd kook Medoune si mi nga xam te ne ñooy liggéey mais présenté wu man la Ibrahima Seck di doom ci moom ñëwoon fii indil ko liggéey bi moom mu doon ndox woo xam ne daanaka dëkk bi yëpp xam nañ ko miin nañ ko waaye ñu indi si leeral rek bokk na ci eau minérale bi njëkk jóge ci suufu Touba kon ndox bi moom day ndoxu waa Touba donte yeneen régions yi ñëpp ñu ngi koy aadawoo di ko yittewoo bëgg ci waaye ki nga xamante ne si nii moo ko sabablu liggéey ko ba liggéey bi toll fii yàlla dogal mu mu wàcc ci bisub gàmmu waaye terewul liggéeyam di wëy ndax lii rek la ci mbëbëtoon bu demee ci kanamam ak ginnaawam lépp lu mu doon def rek muy muy jëm kanam ñun nag ñu tàmbali fas yéene bépp mbébét bu mu amoon ci dëkk bi mu am ko te lépp sosoo ci Serigne saaliw amoon yéene képp koo xam ne rek soxla na jën baa ndox baa glace bañ koo jéegaane fenn di ko fekk fii ci biir dëkk bi waaw di ñaan ñëpp jàpp ci te ñaanal ko. te ci weeru koor wi lépp di agu yu rek moom ak ñëpp tëdd ñépp sunu boroom boole leen xéwal gi ak teraanga ji waaw xam naa ni kàddu yi du gudd foofu rek lañ koy yemale di ko wax ni lii rek moo nu war ñun ñi nga xam te ñoo nekk ci moom sosoo ci moom ci lii rek la ñu yar ci ak taalibe ci jaamu yàlla ak liggéey kon foofu rek lañ koy yemale di ñaanal sunu borom defal jàmm ci réew mi def jàmm ci tuubaa ak li ko wër. salaamaaleykum wa rahmatulah sëñ Ibrahima ñu ngi lay delloo am nuyoo yàgg kilifa yi nga àndal yëpp di leen jaajëfal ci turu daayira Muxaddamatul Xidma bu tu Tuubaa ci njiital sëriñ Afiya bu sa imaam ak ci turu kilifa yi ngànk liggéey bi te nekk ci jotaay bi ñu leen di sant bu baax ci jëf ji ngeen jëf ci lépp loo xam ne daayira bi da koy yittewoo képp koo xam ne dox nga dara jëm ca loola ngeen mu saafara rek. loolu daayira bi dañ lay ameel ak cant ak ngërëm te ku ne xam na ne euh, jumaa ji li ñu fiy jëfandikoo ci ndox kenn xamu nu mu toll waxtu wu nekk koor ak lu dul koor sax ci am waaye koor da ci rawati ndax barab boo xam ne lu néew néew ñeenti junni nii danañ fi doge par bés ñooñu noonu wutal leen ndox dana jafe te koor ba jot xam nga li nga yittiwoo ci ndox kon bu yàlla dogalee ngeen di yëngatu ci wàllu ndox mi di saale ngeen ñëw fii ngir indi seen barkeelu ci liggéey bi cant daayira bi da ak ak ngërëmam mi ngi jëm si seen ndax goros yi andi ngeen fi juróom fukki goros yi ndox ak ñaar fukki sase yoo xam ne moo def mbuus yi ngir barkeelu ko ci liggéey bi kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaanal sëñ Abdoulaye Seck mi nga xam ne moo sosoon liggéey bi te yàlla dogal mu jiitu ji yàlla dolli ko ngërëm dolli ko njëggal dolli ko yéen ñi mu fi bàyyi tamit ngeen ngeen di sàmm liggéey bi yàlla suñu borom kàttanal leen ba li ngeen yéene ci liggéey bi ngeen eggale ko ak nam ko yéene woon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax di leen tàllal loxo ci yi ngeen lim lépp yu daayira bi yittewoo la jën yittewoo nañ ko galaas yittewoo nañ ko ndax ay mbooloo lañ yor yoo xam ne waxtu nekk da leen di togg dañ leen di toggal ñuy liggéey kon nag li ngeen di yëngatu yëpp yuñ soxla la kon nag leen leen lu mu ci mën di doon rek taxaw nañ ngir ànd ci yéen lu ngeen ci barkeelu ci liggéey bi ñu def leen ci liggéey xam naa liggéey bi tamit yéen bu ngeen ñëwee tudde seen bopp sëriñ saale bi ngeen di ñëw ci ngeen fi tasee di doomi soxna wàllum sëriñ saale kon loolu day mel na ne jëf la joo xam ne jëf ju nangu la kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen tàllal loxo ci li ci kanam xam ne taalal nañ leen loxo ngir lépp lu ñu yëngatu nekk rek ñaandoog ci yéen yal na leen yàlla kattanal te leen ba li ci liggéey bi ngeen eggale ko ci bàkki Seexul Xadim wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa yaa xayra dayfin ataa bil madadi ahlan wa sahlan wa adadi